Sénégal euh, di waajal euh, matcham ak wi suba tax ba suñu gaynde yi di amal ji euh, seen entraînement bu mujj ci stade Abdoulaye waat bu jam Diamniadio gis-gis ñuy waxtaan tey santé mentale di maanaam wér-gu-yaram ci wàllum xela sabab lii di bés bin ko jagleel. Ndiogou Diène Amady Ndiaye moo nekk ci machine bi mbokk ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar digg ba gi dañ koy door wàllum njàng mi ak université Cheikh Anta campus ba di fi ndongoy dëkk euh, fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre bi le 19 ci war a ubbi wante liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci kuddu ñoom ñu ngi artu nee foofu lépp dara yembagul pour mën a dalal étudiants yi li ci gën a doy waax nee neen koppar yoo xam ne doyul tax nag ba université ni mu waroon doxee euh, du ko doxee leeral yeeg Nafissatou Sylla Fouki milliards d'Aldi di manqué ci sen khalis centre des œuvres universitaires bu Dakar lolé tax que du mëna gaddu yi ci anam yu ayib kenn ci ñi yoré El Mohamed Lamine Seydi. 2023 dañu amone budget bo xamné

dinañ leen restaurer dinañ leen jox ñu lekk suñ leen joxee ñu lekk suñu feebaree dañ leen di faj seen sécurité ñun ñoo ko yor si loolu yëpp ñu jox ñu vingt milliards. dañ ñu ne nañu tijji le dix neuf dinañ tijji la dix neuf incha allah mais ñu jàpp ne suñ tijjee le dix neuf balaa mois de décembre su nekkee état bi intervenirul université mun na dem si ay jafe-jafe yu metti yu ko mën a puusaat ñu tëjaat. ay tension budgétaire yoo xamante ne suñu moyulee dana salfaañe fonctionnement bu COUD. suñu condition de travail doy na waar. offre yu ñuy demandé par rapport aux étudiants agent COUD yi mënatuñu mais mosuñu yuuxu. budget bi insuffisant na. am na fu muy yegg. dootuñu mën a dëkkal étudiants yi. dootuñu mën a faj étudiants yi. repreneur yi mooy restaurant yi. dañ leen yoreel bor yoo xam ne bor yu yàgg la. seen bor yooyu nag ñom repreneur yi mënatuñu il faut kudd fay len sen bor yuñ len leen sen ma besoin yi kudd dañ ko ravage dara dessatu fi woon. intersyndical bi nga xamantene dalal na fukk ki ñent plateforme ñoo ngi ñaan ministre de l'enseignement supérieur ak sax premier ministre ñu daldi intervenir ba situation bi baña jural ñëpp ay gal encore gàllankoor. Nafissatou Sylla yooyu la liggéeykat yi ko dundoon jën ak taskatu xibaar yi sank ci suba yeneen euh, ñi yëng nek ci njàng mi di chargé de cours yi manam jangale euh, jàngalekat yoo xam ne ay instituteur leen ñu waaye dañ leen di jël ñuy jàngale ah, ci collège yi ak lycée yi ñoom nag li ñu gis ah, moo di ne nguur gi daf leen di doy dal ndaxte dañoo am benn bataaxal boo xam ni waa ministère de l'éducation nationale ah, ñoo ko jël te loolu nag day tax ba ñoom duñ leen mën a recruter loolu nag nekk loo xam te ne métti na leen lool ñuy sàkk nag ci nguur gi ñu daal di leen di bàyyi xel toggaanu ñaxtu lañu amal ca buntu inspection d'académie bu Thiès Cheikh Anta ab circulaire bu ñu génn woon ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre 2023 bi nga xamante ne dañoo dakkal bépp recrutement bu jëm ci li ñu ñuy duppee ay chargé de cours jàngalekat yi nee nañ loolu de fa mel ni dañoo bëgg nasaxal seen promotion ñoom ñi de nee nañu ñu ci bëri am nañu ay lijaasa yu kawe yu ka daggee licence ba doctorat Ousseynou Faye moo yor seen kàddu képp koo xam ne aspiré woon nga amoon nga yéene promouvoir sa carrière inter sa carrière ñu mën laa jël yóbbu la parce que ça ne sert à rien jëriñul dara nga am sa diplôme licence maîtrise doctorat yow nga nekk ci élémentaire ba kañ yaakaar naa ku doon jàng ba heure boobu noonu am na loo ci bëggoon am nañu ko tiit ak njàqare lu jëm nag ci seen plan de carrière fay ci ay jàngalekat ñu jàngaleen ba université ba ñu diplômé ñu bëgg leen a teg na la bàyyi leen confiné leen élémentaire à à vie dem di jëlee ñeneen au moment que ñun am nañ expérience bi jàng nañ ba am suñuy diplôme ba pare ay at yu bëri def nañ ko ci élémentaire. enseignants yi ñoom nee nañ lu mu gaaw xeeb nañu ko jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu njàng meeg njàngale mi na ci taxaw. ministre bi comme ni ko son excellence président Diomaye Faye di waxee muy jub jubal jubanti dañoo bëgg ñun ñi ñu jub jubal jubanti suñu cas on est diplômé et vraiment. ñaan ñu yàlla wax dëgg yàlla jël suñu carrière rek toog sans benn plan de carrière boo xam ne c'est défini loolu. ñoom sax ñu ngi ciy sàkku nag syndicat jàngalekat yi ñu jàppale leen ci jël dossier bi yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh euh, mu fekk jamono jooju ñi nga xam te ne ñooy liggéeykat yi nekk ci maire yi euh, namoon a amal te ji ci suba fii ci ndakaaru euh, toogaanu ñaxtu te buntu ministère bi leen jaboote di ministère des collectivités territoriales loolu nag ngir sàkku ci ministre bi di Balla Moussa Fofana dal dalal leen waxtaan ak ñoom ci seen tawat waaye loolu antuwul préfet bu Dakar moo gàntal lu ni mel di wax nag mënuñu ko ñu

tardivement tay ci suba lay le commissaire bi woté né voilà euh, ñun dey mënatuñu ko tenir ci ci kanamu euh, ministère bi waye dañuy yobbu fële ci ci ci ci rond point Liberté sac té lool nak ñun dogeewuñu ko woon waxon nañu militant yi ak ñëpp ñu xey bu ñu xëyee dix heures ñu dajé ci kanamu ministère waye ñom ñoo ñu né orienté ñu né li ci jubloon mooy jàkkaarloog ministre bi wax ko li nga xamné mom moy suñu suñu suñu mécontentement ndax bo ba légui ñëpp xam nañ né ministre bi mu ñu tënk xam lu gouvernement baa ñu

inshallah, dinañ bind dinañ bind euh, préfet nañ rek parce que ñun xam nañ ne toll ni li wax ñor nañu xom autoriser nañ ñu itinéraire bu demandé mën nañu sax euh, proposer ay itinéraire bu demandé bo xamné japp nañ ne baax na buñu fa suñu bi am am am impact dinañ ko nangu dinañ mobiliser Sénégal yépp ñu ñëw euh, dox doxu ñaxtu ni manifester suñu mécontentement ci mutisme bi nga xamné mom la état Sénégal di nekk dëpp boobu léegi mu nekkoon Ndiaga Diop yorukat jëkk liggéeykat yi collectivité territoriale ñoom nag li ñuy sàkku boobu ak léegi maanaam yokk leen seen payoor eh, niñ ko defee ak yeneen eh, liggéeykat yi bokk ci nguur gi ñaxtu ba léegi ak ñeneen eh, ñu doon ñaxtu di askanu Burabu dëkk bu nekk ca commune bu Bogal ca diwaanu Sédhiou dëkk boobu nag neneen dara am fa la fa gën a day waax moo di pont bi nga xam te ne moo dox diggante Burabu ak yeneen ni dëkk pont boobu dafa màgget màggetaay gu jéggi dayoo te mën na ci am Bakary Konte piste de production yep yi jëm ci burabu Bourabou ben baaxu si nak taxna am ay jafe-jafe pour amal évacuation sanitaire yi conséquence jigéen yi faatu ak ndaw yi bëri na ci Koli ICP bu Ndiolofène Bourabou mais yoon bi ñu soxal parce que tay yoon amul motax suñuy malade dañuy am ay gàllankoor ay jafe-jafe ba si sax faat parce que duñu mëna jot yoon bi tay ambulance bi ñu soxlayee urgence nu mënti loolu ambulance bi du dugg si rawatina nawet bi ci tali bu xonk bi lay taxaw xaar la yow nga jéem a wut pexe sareet wala moto wala sax euh, trois yi pour teg ci malade bi urgence bi nu mënti toll muy tuur deret mu nu mënti doon teg malade bi si charrette ñëpp di ko xool wala ci trois cycle pour mu mun a dem si ranran bi ambulance bi mun ko jël dañuy bëgg a ñëw gaa mais du ñu am lu leen andi parce que charrette sax pour mu ñëw day jafe donc bu nekkee guddi la matu bi ñëw femme bi dañuy préférer moom mu toog seen waa mu toog foofu mu matu faat am na ci am naa ko benn yoon ñaari yoon te dañuy ñaan vraiment mu yem fa. Njolofen ju ñaawlu tamit ñàkkum courant. wàllum courant bi moom la ñuy gën a joytu bi presque ay at at at at ñu fii ñun dañuy joytu ay courant duñu gis autorité fu ñuy gisee autorité voté bu jotee lañ koy koy gisee dañuy ñëw parce que ñoom ñoo ñu soxla suñu électeur lañ soxla bu ñu waxee nawet c'est ñun dañuy tëju ci dëkk yi bu ñu waxee a génn booy génne dëkk bi li ci Ndiolofène Bourabou lu ñu bëgg nag mooy nouvelle autorité yi daal di leen jàppale jénnee leen ci pax bu ñu nekk Bakary Konté Sédhiou rajo Futurs Médias Bakary Konté yeneen i askan ñi ñu bëgg nguur gi génne leen ci pax mi ñu nekk di askanu Euh, Djilor Djidiack nekk ca diwaanu Fatick ñoom nag li leen sonal mooy càccum jur nee neen nag sonn nañ ci lool tax sax ba nelawatuñu tax sax ñu bëgg nguur gi daal di leen di dimbali ci mbir moom ak ñii di takk der yi Aminata Goudiaby. Aliou Diouf éleveur la moom nag la ñu mujjee sàcc ak juróom fee ca village Djilor Djidiack nee na guddik altine jàpp talaata lañu ñu sàcc ñetti nagam yi mu bàyyi woon ci géttam boobu léegi nag ñi ngi seet seet yu métti métti waaye ba léegi gisaguñ dara. parce que c'est aux environs de ay nag ñetti nag nag nag yoo xamante ne dama leen dama leen bàyyi woon ci kër gi di leen yar pour que bu ñu demee ba am yenn poids yi ma mën ko jaay donc pour lu may su suturlu ak sama njaboot donc ñu fekk fi nag yi yóbbu leen dafa am fu daaj yi génnee fa nag yi. laataa loolu itam ay fan ci ginnaaw am na yar ay mbaam yoo xam ni sàccoon nañu yosam mi ngi tudd Gabriel Baaxum moom itam mu koy métitlu. parce que ñun bu ñu bu ñu yarul mala tamit day métti si ñun parce que mala yooyu ñuy yar moom la ñuy jaay pour dimbale suñu bopp dimbale suñu doom yi fayal leen ci ñu ñu yar dara y a catastrophe ñu doon ñaan dimbal wàllu autorité nga xamante ñoo nekk ci ñu jàpp na jur gi ak yeneen i objet de valeur mi ngi ëpp loxo fi mu ne nii ci village bu Djilor ji jàkk nga xam ne ci commune bu Fimela la féetee ñoom nag ñu ne ñi ngi waaj teg kuréel goo xam ne ci seen dëkk ba day gën tax ñu am kaaraange ndaxte seen dëkk boobu jafe-jafe mosu fa am lu ñu commencé constaté suñu suñu dëkk xamuñ ko woon daanaka ñun amoon nañu ay mala di ko doon bàyyi sax ñuy doxantu mais

Terre bi nga xamné ne kilifa yi défar nañ ko ngir xeex li nga xamné ne di mbëkk mi dippee ko stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière bo seetloo am na li ci soxé moy li jëm ci wala plan d'action bi manam nañ koy doxalé ci gox goxati bëre bi nga xamné ne fa la ñu nemmeeku départ yu baree bare xalaat bi tukkee ci ki nga xamné nak modi maire bu Kafountine bo démé ci terrain bi doo ko sentir te lii nii mënuñu ko def sans pour autant impliquer les collectivités territoriales nga xamné ñom ñoo nekk ci euh, la zone euh, côtière alors bo xolé ci plan stratégique bobu parti bu ñu jagleel collectivité territoriale benn paragraphe rek la. jàppale nguur gi ci cooxe nga xam ne ñoo koy ne lan ci wàllu nga xam ne boo di mbëkk mi moo tax a jóg fondation Konrad Adenauer loolu moo tax sax ñu lal ab lël ci Ziguinchor boole si ñëpp Rokhaya Ndiaye Keita moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu migration ci fondation Konrad Adenauer parce que gis nañ ni tey migration bi ni mu mel Ziguinchor ni mu yokkoo moo tax léegi meeru Kafountine bi wax na parce que Kafountine a payé un lourd ci perte en yi moo tax bi mu a waxtaanee question migration irrégulière mais question de la féminisation de la migration. lepp li nga xamné ne nañ ko dañ ko def ci biir téré jaglél ko kilifa yi ngir jappalé len ci xex bi nga xamné ñu ngi koy nas jamono ji jëmale ko ci kaw mbëk mi. Sidia Thiané moo jiite association La Boussole di ab partenaire fondation Konrad Adenauer. lu ñuy tënk fii euh, dañ koy jox ay autorités pour que autorités yi ñu mun si basé wu pour que autorités yooyu seen décision boobu ñu boole si lu ñuy tënk fii pour mu gën a dooleel ci seen décision yi pour mun a arrêter phénomène immigration irrégulière. Ziguinchor nag boo seetloo am na ñeenti pirogue yi nga xam ne nag ñoo ngi doon waajal ngir dem. ñu jot leen téye nag fa nga xam nag moo di Kafountine Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média Lamine Ba foofa ca Ziguinchor une heure tegal na fukki minute ak ñeent ca Yamatooñ ak li RFM rajo askan wi. wax ci leneen jëm ci délégation bi yor ajik màkk gi délégation générale au pèlerinage nag démb nag lañ fa tabb kii di général Mamadou Gueye di général armée bi wu retraité moom nag moo jite kon léegi kuréel kooku ñi nga xam ne nag ñooy yóbbuwaate euh, màkk ñoom nag euh, di wax ne lañ rek la ñuy xaar ci moom mu ubbeeku di waxtaan su ko defee rëq-rëq yi ni faral di nemmeeku saafarawu Seydou Nourou Ba regroupement bu boole ñi nga xam ne dañu yëngu euh, ci umra ak hajj fii ci Sénégal nag li ñu xaar ci équipe bu bees bi te délégation générale pèlerinage à la Mecque mooy seen liggéey ñu boole ci ñeent ci war a boole bay fi dal di antu Ourey Thiam moo fa yor jokko bi ne ni nag li ñuy xaar mooy rek euh, état bi ànd ak euh, privé bi ñu mën a teel a lijjanti lépp lu jëm ci wàllu aj gi waaye def ko ba nga xam ne it Sénégal dina ci mën a gis boppam ñiy liggéey ci aj gi gis seen bopp waaye ujaa ci ñiy yóbbu gis ci seen bopp ñu améliorer condition yi nga xam ne moom mooy suñu nekkin foofee ci mun na Arafat te lool di jaar ci état bi ndax état dong ko mën a lijjanti lépp luñ ciy def aussi ñuy sàkku ci loo xam ni mu nekk démarche participative maanaam loo xam ni ñi dañ koy waxtaanee ndax wat Wadgaal ak Yogo mu nekk loo xam ne dañ koy waxtaanee ñi nekk ci secteur bi am nañ ci expérience yàgg nañ ci seeni loxo. Euh, set na mën nañoo ànd ak képp koo xam ne dafa ñëw pour liggéey. Cheikh Bamba Dioum di premier vice président sax Renofis boobee di wax li nga xam ne moom lay xaar. liggéey boobu pour mu jaar yoon. ñu xam ne foog ñu lënkaloo ak privé bi. nga xam ne nag ñoom ñi ngi fi démb ñii am nañ expérience dix ans ñii quinze an ñii vingt ans ñii ëpp expérience vingt ans. kon nag bu ñëwee fekk si ñu ñun ubbil nañ leen suñu bunt. ñu xam ne ñun lépp luñ ci xam ak lépp luñ ci mën. pare nañu pour tegal leen ko ñu ànd liggéey ndax nag ñoom la ñu sas orientation bi ñoom lañ ko sas dogal bi ñoom lañ ko sas waaye aj gi dafa tàmbali partout à travers l' Afrique partout à travers le monde Arabie Saoudite dafa teg calendrier ne nañu ko respecté kon hésité waratul a am ñëw rek dugg ci liggéey bi lépp lu ñu war a def nag nañ ko diisoo bu ko defee njuumte du am. kon nag mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñooy waaye si privé yi nag di am yaakaar ne équipe bu bees bi nga xam ne général Mamadou Gueye moo ko daal di jiitee dinañu bàyyi xel bu baax a baax ci li ñu wax ngir daal ñu bañ a dund li nga xamante ne dañ ko doon dund ak yi weesu ci aj màkka bi ndax gis nañ ni da doon bëri lool ay wal yu tardé wala sax ay lënt-lënt laataa ñu fi jóge ba sax foofee ca makkatal mukarrama Seydou Nourou baax keneen ku ñu fal démb ca conseil des ministres di Abibou Dia moom nag moo nekk léegi directeur de la communication mu wut fa Ousseynou Dieng moom Abibou Diané xam na bu baax liggéey bi koy xaar leen rek moo ko soxal moo di waxtaan ak gisoo su ko defee ñoo gën a taareel méccam tasum xibaar ci Sénégal dañuy déglu ay kàddoom moom Abibou Dia. di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo ma tàbb ci bërëb bi. ngir yàlla mottali seen yéene ci li nga xamante ni moo tax ñu tànn ma ba ñëpp ñi di liggéey ci mbootaayu taskatu xibaar yi mën cee gis seen bopp ci wàllu jéego yi nga xamante ni moom lañ moom lañ jël wax dëgg yàlla ñaan yi moom laay sàkku képp ku ma jigee képp ku ma xam képp ku ma bëgg képp kuy sama xarit wala sama mbokk nga dimbali ma ci ba yaakaar bañ a tàkk ñu ngi la fal ci contexte bu metti pour euh, presse bi euh, ak tamit euh, diggante bu xajam seen jëflanteeg nguur gi nan nga fas yéene def ngir dal am waaw man jàpp ma ne wax dëgg yàlla dëgg diggante bi dafa ñagas jàpp ma ko ndax euh, taskatu xibaar liggéeyam moo jël xibaar bi tasaare ko ngir askan wi mën see jot tey tam euh, njiit buñ la jiitalee euh, li sa yi tey mooy tamit nga jéem a xool bépp bërëb boo xam ne mën nga ci indi pour gën koo defaraat nga def ko donc lii am li yoon la te yàlla may na ma ma bokk si nga xamante ni liggéey nañ ak njiitu ministre bi ministre bi ci journée de xalaat ak réflexion bu mu amal ak taskatu xibaar yi te boobu léegi wax dëgg ñoom ñëpp mu ngi koy jéem a def indi na ay leeral ci ndàmpaay euh, yi ñu doon jox journaliste yi pour leeral ko entreprise de presse yi euh, créé na rapidement ci délai yoo xam ne dafa gàtt loor diir yu gàtt ak plateforme ngir yombalal média yi amul autorisation ñu enregistré wu te itam yéen na jéego bu am solo ngir taxawal ab kuréel ngir ñooñu saytu bépp kayit boo xam ne euh, média yi nañ ko dugal ngir faciliter seen reconnaissance kon ci li ma jàpp ñagas ñagas amul xëy la dinañ ci def suñu kéemtalaayu kàttan képp ku ñu ak yow wax ak yow ngir mën a euh, mottali yéene yi mottali liggéey bi moom la ñu dénk taskat xibaar yi mën see gis seen bopp incha allah. mu nekkoon Abibou Dia nekk léegi directeur de la communication moom sax jot a jaar fii ci RFM ñi koy ñaanal yàlla woyof bi euh, yéen bi woyof te yàlla defal ko ndam ci liggéey bi wax ci nawet bi ak taw yi nga xam ne taw na ko ci biir réew mi yëpp te biig euh, jàpp tey ci suba waa météo. Sonko eh, ne dafay wëy taw yooyu ba kon suba ci ajuma ji dañ ci déglu monsieur météo Tidiane Jéjo ci jokkoma ko mu kalsum lii daanaka gox yëpp ñoo amoon ay taw yu am doole lu mel ni région nord ci loon mi ngi am 45 mm 4 baloji 32 mm Moutsi 23 mm, Luga 4 mm, Yof mingam 11,6 mm, 11 14,4 mm, Goré 13 mm. région sud-ouest Dabo Moraugadou raw gadou mm 135,7 mm, mm mm. mm, Gadaji cent euh, quelques stations la cité léegi en terme de perspective euh, ANACIM mi ngi séentu nii euh, lu mel nii mooy taw bi dina wëy euh, ci côté Casamance lu mel ni Ziguinchor Kédougou polda Sédhiou tey ci alxamis bi taw bi nag dina laal région centre comme Kaolack Fatick Diourbel Dakar donc ajjuma bi nag taw yi dinañu commencé wàññeeku ci côté est waaye ci région sud ak centre sud ñu ngi xalaat ne dinañ fa am ay taw mu nekkoon euh, monsieur météo Tidiane Diédhiou daaneel ak wàllum wér-gu-yaram tey fukki fan ci weeru octobre di bés bi ñu jagleel wàllum wér-gu-yaram ci wàllum xel euh, ci loolu nag euh, ñuy waxtaanee lu jëm ci wàllum santé mentale ci bërëbu liggéeykaay yi nga xam te liggéeykat yi saa su ne ci stress li ñuy liggéeyee ana nag lañ mën a def ngir feggul lu mel gëstu baawa mbay. ci bërëbu liggéeykaay liggéeykat bi ci boppam bu demee ba am jafe-jafe xel dina metti lool ñu faj ko ba mu delluwaat na mu meloon lii di gis-gisu docteur Babacar Fall moom médecin du travail la mu yàgg ci lool nag. et que généralement nit bu amee feebaru xel pour mu dellu soit day jafe. loolu moo tax moo am importance prévention. prévention bi nag ñëpp ñoo ci war a jàpp. mu yokk ci ne lu ci bari yenn stress yi dañu koy jiiñ ne bërëbu liggéeykaay bi moo ko indi ndekete dañu ko jëlee feneen ci biti indi ko fa docteur Fall. bare na tamit ni day am jafe-jafe su buy liggéey bu stressé ñu ne ci entreprise bi la ko jëlee te léeg-léeg stress bi mën nga ko jëlee feneen indi ko ci entreprise bi xool sax nga ni ko loo may xoolee donc c'est très compliqué Ibrahima Mbaye moom moo jiite association bi ëmb DRH ñuy toppatoo liggéeykat yi ci biir entreprise yi moom mu ne lu ci gën a bari nag li ñuy digal nit ñi ngir ñu fagaru ci jafe-jafe xel ci biir entreprise yi mooy ñuy waxtaan waxtaan yu yaatu boole ci di noppalu ak yeneen. li ñu mën a yi dañuy am benn temps de repos parce que lu am importance la parce que bu nekk ci entreprise tout le temps di liggéey nga xam ne sa lépp ci liggéey bi la nekk amuloo jot saxu génn amoo sax jotu jël pause amoo jotu sax jël pause dem euh, naan café am ñoo jotu pause dem añi ak yooyu bu ko defee nekk ci liggéey bi liggéey bi dem ba yàgg da ngay saturé loolu moom mooy indi bu ko defee da ngay mere ñoo xam ne defuñu la dara ci fagaru bi jëm ci aar liggéeykat bi ci wàllu xelam rawatina ci stress bi njaati njaatigéey yi ñoo war a tëgg plan bi doxalee ko nii boo jëlee entreprise dañoo prévention bi directeur général moo war permettre benn politique. mais politique bi ñu koy appliqué dañu bare. médecin bi am na si fondamental parce que jàng na ko mën na gis mën na xam mën na accompagner mais du moom rek moo ko war a def direction des ressources humaines daf ci am njariñ service social bi am ci njariñ partenaires sociaux yi mooy syndicat yi yëpp dañ ci am njariñ alors lu am importance mooy nit bu amee jafe-jafe ñu taxawu ko taxawu ko mooy ci secret ñu xool lan mooy problème am seet kan moo ko mën a jàppale nit ki nag am wér yaram gu ñong ci wàllum xel loolu lu am solo la ba tax bërëbu liggéeykaay yi dañoo war a def lépp ngir toppatoo ñi nga xamante ne ñoo fay liggéeyee su boobaa lu ñu sumb rek daañu ko ko daan ci wàllum liggéey bi FM bitim réew. xibaaru bitim réew ana Rocha lañ ci àndal ana ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax Hadj jogo réewum Togo lañ koy tàmbalee foofu kuréel gi di dynamique pour la majorité du peuple di sàkku ñu taxawal commission ngir leeral cong gi nga xamante ne amoon na gannaaw benn ñaxtu woo fa amoon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bi ñu génn ca capital ba. ca capital ba di euh, Lomé ay nit ñu bëri ba jëlee ci ay gaañu gaañu bokk ci ñoom euh, député bi di gi Marius Sagna bokk itam ci parlement. parlement bu euh, CEDEAO euh, ki nga xam ne moo jiite plateforme bi bokk ci opposition bi foofee ca Togo euh, daal dina yëkkati kaddu niki tey ji fukki fan gannaaw attaque boobule ñu ànd ci nag ak yeneen nit ñi nga xamante ne jëloon nañ ci ay gaañu gaañu bu ñu sukkandikoo ci RFI ñu ngi teewee ak seen i pansement ci bopp bi ñenn ñi am plâtre ci loxo bi ñu daal di yëkkati kon kàddu dellu siwaat ci attaque boobee amoon ca Lomé ñu déglu ci seen njiit kon di Brigitte Kafou Johnson euh, ci micro suñu RFI. Nous avons tenu à démentir ce mensonge. dañoo bëgg a weddi tuuma yi muy li ñu gouvernement bi bëgg defloo ñu jàppee ko ab manipulation tey tamit bëgg nañu mu leeral lépp loo xamante ne dafa jëm ci li fi jot xew am nañu droit itamit laaj police ay compte ci li jëm ci taxawaayu nit koo xamante ni dafa nekk ci ay jafe-jafe dañoo war a teg itamit ab kuréel ngir rek leeral mbir mi ndax lu ni mel nag laal na doomu Togo yëpp tey tamit laal na ab doomu Afrique di ab sénégalais. la nécessité d'une enquête international. ne woon kon euh, euh, Brigitte Kafou euh, Johnson coordonnatrice plateforme Bidi, dynamique pour la majorité du peuple di jaajëfal Umu Kalsum teki mi tekk yi lay kàddu. wey dañuy Kenya fofu nak ñu bëri ci député yi ànd nañu ah, ci ñi tekki ndombal président vice président ba. Goulet li ni mel di am Kenya vice président ba di Gashaga Gachagua liñ koy tuumal mbirum guerre moom mi nekk numéro 2 bu état bi foofee euh, ca Kenya nee nañu dafa jël ay propriété immobilière ci anam yu dëppul ak yoon naka noonu ay hôtel de luxe bu ñu sukkandikoo ci yenekaay bi di euh, Le Monde bokk na itam liñ koy tuumal division ethnique maanaam euh, xaajale nit ñi foofee ca Kenya waaye itam teg pression ci kaw ab juge jamono campagne présidentielle atuma 2022 ci la ko William Ruto tànn ngir mu doon vice président bu réew ma waaye nag gannaaw manifestation yu métti amoon euh, diggante juin ak juillet 2024 ngir ñaawlu loi de finance bi ñu fa bëggoon euh, voté euh, te police daal di réprimer manifestation yooyu ci la vice président bi tàmbalee kon génn tàmbale kon yëkkati kàddu jëmale ci kaw William Ruto ndax dafa ñaawlu woon anam yi nga xam ne moom la police jëfandikoo fitna ngir tasaare mbooloo mi jamono yooyu kon moom vice président job Euh, gannaaw assemblée nationale bi nag ñu ngi xaar euh, lan mooy tukkee ca euh, ca Sénat bi nag waaye leneen ci wàllu xibaar moo di processus de destitution bi ñu tàmbalee foofu boo moytul nag dina laal itam njiitu réew ma ci boppam ndax ajuma ak léegi dafa am benn hashtag boo xam ne daal nañ ko génnee ci Twitter bi ñu tuddee ko impeach boof maanaam destitution ñoom ñaar ñëpp ndax président Ruto lu lu ko askan wi mere moo di nekkul di déglu li nga xam ne moom moo leen ñom la la leen di wax. lu 79 millions di juróom-ñaar fuk ak juróom ñent millions ci jigen ñom nak lañ yegg seen kaw ak yenen ci aduna bi. mu tukkee ci euh, ab euh, xibaar euh, ni ki tey ci UNICEF di fond des Nations Unies pour l'enfance bokk na kon Afrique subsaharienne diwaan yi ëpp ay fiñu fitna fitnaal kon xali yu jigen yi gulet nak UNICEF di siwal ay statistiques yu melni nga xam mu ngi jëlé ci ay données nationale waaye itam euh, ci ay programme d'enquête euh, ci adduna bi yëpp diggante 2010 ba 2022 Hari Silla ca Afrique subsaharienne téeméeri jigéen yoo jël ñaar fukk ak ñaar yi mës nañ leen sàkku mbaa ñu leen di siif bu ñu sukkandikoo ci UNICEF di mbootaayu Nations Unies gu yor lépp lu jëm ci wàllum xale yi mu nekk nag dëkk bi nga xam ni bokk na ci ñu gën a ràññeeku ci xeetu violence yi ci àddina bi moom nag moo topp ca Océanie mi nga xam ni moo jël raw gàddu gi ak téeméeri jigéen yoo jël fanweer ak ñeent yii mbir moomu soxal na leen bu ñu defee xayma yépp ëpp juróom ak juróom ci ay jigéen ak i xale boobule siif nañu leen baa ñu sàkku leen ci biir boobale dëkk ca beneen wàll mu nekk ñetti téeméer ak juróom-ñaari million ci xale yu jigéen ak i mag yu loru ndax siif gu ñu leen di siif bu ñu sukkandikoo ba tey ci UNICEF sàkku mbaa siif gu ñuy def ci xale yi ab gàkk lay def ci seeni bopp loole nag la kii di Catherine Dussel jiite UNICEF ñaawlu ci ab bataaxal ci chiffre yi nga xam ne jibal nañu ko am na ay gàllankoor yu mënul woon a ñàkk xam nañ bu baax fu ñu mën a yam gi jaarale ko ci ay chiffres loolu lee la kii di Koulibaly Diakaba doon ki jiite xaymakat yi ca organisation ba daal di xamle. xari Sylla ñu daanale xaaj njogu ak pris Nobel de littérature 2024 bi nga xam ne siiwal nañ ko ni euh, tey jii ñu ngi koy jox sud coréenne bi di euh, Anne euh, Kang nee nañu bindam bi nga xamante ne moom lay fësal dafay rek sukkandikoo ci méttit yi nga xam ne moom lañu nemmeeku ci àdduna bi yëpp moom Anne Kang bu weesu mbind mi nag day faral itam di yëngu ci wàllu musique jërëjëf kon ñu yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal Junior Diagne Diagne maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay As Ndiogu. football ak doore ak suñu gaynde yi di amal seen tàggat bu mujj tey ci ngoon. Mm-hmm, mm-hmm. tàggatu bi tàkkusaan lañ ko teg sax bu jotee ca jam ñaajo ngir nag euh, ñu mën a seet seen wàccaay yi naka lañ ko mën a yeggalee ba ëllëg nu jongante seen diggante ak ñii di waa Malawi dina nu tàggatu googu nag fukki minute ak juróom yu njëkk yi ko tijjil. taskatu xabaar yi ngir ñu mën ca jëli ay euh, portale ki ay calamayer ngir mun ko won sénégalais yi ëllëg la jongante bi ca stade Diamniadio euh, Malawi ñoom itam nu tàggatu ca stade ba ni ko euh, réglement bi bëggee laataa nu jongante ak waa Sénégal. nu wax nii itam tey jii euh, ci jongante googu la itam Sénégal moom mu ngi si ñaareel bi place ci boobu les topp si ginnaaw Burkina Faso jiitu euh, Burundi Malawi moo nekk si euh, place bu mujj bi Sénégal ak Burkina Faso ñoom ñoo tolloo ay poñ Burkina. Mhm. tey lay jongante. moom tey lay jongante moo la daje ak Burundi. Burkina ak Burundi. loola kon tey ji bu juróom-ñaari waxtu si ngoon a jotee la nara doon Sénégal ñoom seen jongante ëllëg bi naka lañ ko waajale ba mu mën a yemb ak itam seen diggante ak waa Malawi ca Malawi naka lañ fas ñu def ba loola tam yemb ba lépp jaar ci yoon ki ñu dénk ko ba ca fédération di Seydou Sané jot na am lu mu tënk ci wàccaayi fédération yi ci suba tey gi ñu déglu ko.

bu ñu fubalee ba noppi rek fukk fan ak ñett ci weer bi dañuy daal di rek jël avion dem foofa ndax nag dañu bëgg teg lépp lu baax ngir mën a teel a yegg waajal suñu bopp gañee foofu ndax bu nu gañee foofu ak ndam bi ñu am fii incha allahu rabbi mooy tax ñu mën a taxaw taxawaay bu dëgër ngir nag jëm ci qualification coupe d'Afrique bi war a xew ca Maroc. pour maintenant nous mettre à l'abri euh, de la qualification. gannaaw waajtaayu fédération naka la ñu toppatoowee xale Sénégal yi nekk ci équipe bi di football seen wér yaram docteur Abdourahmane Fadior mom lu denk lola loola am na lu mu yëkkati ni ci walum paj mi Ismaïla Jacobs mi ñu doon euh, ruu mandat dafa gaañoom gañewul ak Abdallah Sima waxna ku nekk ñoom ñaar lan moo jagadi ci sa gu yaram À ce jour, euh, je peux dire que au niveau de la tanière, euh, globalement. ñoo ngi sant yàlla ndax sunu xale yi dalal nañ leen fii te bëriwul ñu am ci ñoom ay gaañu gaañu mennum euh, Abdallah Sima moom moo indaale gaañu gaañu ci pooju tànku càmmoñ bi ba nu ñëwee xool nañu ko ndax équipe bam doon waxoon dafa war a def ay dallu ak yenn xeetu paju ngir gën a wér bu ñëwee fii itam defal nañu ko IRM xool ko dafa ko échographie ba gis ni dafa gaañu dëgg-dëgg ñu bàyyi ko mu dellu ca clubam ngir ñoo ñooñu mën a yegali faj mi war ci moom mbiru Ismaïla Jacobs itam bu mu dikkee fi xol nañu ko mom dafa amone ay euh, gañu gañu ci genou tànku càmmoñ bi waye gañu gañu bobu waru ko téré football té càmbar nañu ko xol ko mom itam li war ci mom def nañu ko lolo moy li mëna japp ci wàllum patal gi ci biir équipe nationale. cartilagineux au niveau son genou gauche. ce qui l'empêche pas réellement de jouer. ce qui l'empêche pas réellement de jouer. Diagne dañuy wéy wax léegi lu soxal wàllum football ba léegi ak euh, coow li am diggante fédération bu football ak génération foot fi mu toll nii nag dal dellu si na. coow loolu daanaka mënoon jàpp ni jeex na ndax fédération bi nee na bàyyi na lépp lu mu yëkkati woon nim ay dànkaafu teg ci ndoot di waa génération foot la sababoon loola mooy kayit genn gu waa génération foot jébaloon bànqaas nekk ci bi biti réew ngir kalaame lan leen ayee jongante ci seen Ndaw ni juboo dox na seen diggante Seydou Sané ba tey ci ndajeem tey ci suba si ak xabaar yi taskatu xabaar yi jot na am lu mu ca yëkkati faram ko. dans notre comité exécutif du septembre ci suñu ndaje fukki fan ak juróom ci weer wala nu weesu waxoon nañu affaire génération foot ndax dafa bindoon ab këyit diñu kalaame ci banqaas yi yore football ci wàllu adduna bi te loolu bokkoowut ak lu dëppoo ak sarti fédération yi ba taxoon ñu jël dogal ne dañ leen di kon euh, teg daan waaye gannaaw ba ñu ba ay bataaxal ni ñoom këyitu kalaame googu rocc nañ ko nun itam waxtaan nañu suñu biir ba ñu ni mbooleem seeni daan yi ñu bëggoon jël teg si kaw fédération foot di ñi nañ ko ndax loolu itam bu ñu xoolee mooy njëriñu footballu Sénégal dañu war a ñëpp dajale ñëpp dajale doole yëpp ngir liggéeyal football Sénégal rawatina football bi ñu def fii ci biir réew mi ngir mu jëm kanam te génération Foot itam am na taxaw am solo moo tax daal léegi jàmm kese la ñu seex ak ñoom fexe ñu def nag ba football bi jëm ci kanam ci anam yëpp. Conformément à ce que nous avons dit, il n'y a pas lieu de poursuivre cette affaire et que dorénavant cette sanction est levée. tubaarkalla alaaj Ndiogu. Mm-hmm. aywa daan na démb ci waxtu bi newoon naa la maa ngi dem. waaw te it maa ngi lay tàggu bu subaa ñu dajé ah kan kon yàlla ñaal dajé ngay naan maa ngi dem. waaw maa ngi dem de barkal ba suba inshallah allah jaajëf ba suba ak jàmm jërëjëf aywa société industrielle papeterie express du Sénégal Cipex, Midefar Kaye espoir ak teranga Touba Darussalam Salam Caro Prestige Senle de bébé Doudoun, NCA assurance ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñi mas a dégg monsieur le ministre ci nguuru Macky Sall ñu bari ci ñoom l'observateur nee nañu seen yoonu kasa taxaw na li tax mooy coowal reddition des comptes yi l'observateur mi ko bind teg na ci di wax ne bari na ci ancien ministre yu Macky yi ñu bëgg falu doonub député ngir tey bu ñu demoon ba war leen topp ci yoon mbiri du yombe noone ndax woon bu Macky tàmbale naa xajam firnde li yéenekaay bi nee nañu mooy kii di maître Malick Sall ni ñu doxale ak moom ci investiture yi moo tax mu démissionné ci APR ba noppi nag fas yéene boycotté élection yi du ca def du ca dindi point actu di ñu wax ne bari na ñoo xam ne ay responsable la woon wékkee woon ci Macky tey jii ñu bari ci ñoom tëgg nañu seen i liste fas yéene jàmmarloo ak moom Macky muy Abdou Karim Sall di Moustapha Diop di Maguette candidature moom Barthélémy Dias mbirum Fatou Ndiaga Diouf la ñu sulliwaat teg ci taabal ji ngir bëgg koo xañ wotey législatif yi ñoom waa ànd liggéey sunu réew yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne seeni pexe bu sottee bëgg nañoo invalider liste nationale bu coalition sàmm sa kàddu la si ne nañu li daloon waa yeewi askan wi ak seen liste titulaire bi ñu tëy woon ci élection législative yi weesu mooy yoot waa sàmm sa kàddu ndax ay recours yu ñu teg ci taabal noblesse ci mel ne Anta Babacar Ngom Cheikh Tidiane Youm Déthié Fall ak compagnie ñii journal Témoin gis na ne seenu bokk ci législatif yi mi ngi bëgg a suuf ndax Barthélémy Dias mi ñu recours Ousmane Sonko mi waa takk wàllu Sénégal recours moom it le Témoin ne nañu déposé na ab mémoire de défense ngir li bëgg mu di ñu tere ko bokk ci wete yi loolee bañ léegi ko nañu fukki avocat la Ousmane Sonko jël ngir ñu géreel ko yëf yi démb la ñu journal public moom li ko jaaxal ba tax mu xëy di ko laaj di seet ku ko ci dimbali xittali ko ci mooy alliance yi ñu gis ñu tëgg leen ci législatif yi ñi leen tëgg ba teg leen ci lan lañu ko teg ne bari na ay leader politique yu joxante loxo ngir législatif yi seeni suwaa kenn comprendre ko ndax trahison la wala transhumance la wala stratégie politique la noonu démb yu doon ay gaañ tey bu ñu tollee ci campagne lu ñuy wax waa koñ bi yii yëpp laaj la yu a kaay xëy ginnaaw ay weer ñu ko bloqué woon Diomaye Faye dellowaat na bourse sécurité familiale yi seeni borom réew mi quotidien di ñu xamal ne moom njiitu réew di président Diomaye Faye yemul foofu ndax plan Sénégal émergent di PSE gi ñoom Macky Sall doon doxe Diomaye Faye gas na ba mu xóot mu ne ko ca yenkam suul ko indi beneen référentiel politique publique euh, trésor public ak njuut njaajañ fa ndox jëme ci ay sec yu ñu falsifié libération mi ngi ñu wax da daan bàyyi ma nit ci ay sek tamponné leen toppandoo signature bu payeur général bi encaissé sek ya damu ci poosam journal bi nañu ba ñu ko daanelee moom Mansour daanuwul moom rek ndax daane laale beneen transitaire bu ñu naan Mali Seck ndax moom Mali Seck nee nañu dafa jot segub 400 bu ñu jaarale ci benn intermédiaire bu jigéen jigéen ji ci l'observateur def na lu ëpp ubbil yéenekaay bi ab aaw bu jël doomi wu jëm sànni ko ci teen journal bi nañu ca yëmbal bu jigéen la bu tolloon ci fukki weer ak ñeent li ci gën a yéeme nag mooy moom aaw bi lañ ko tudde woon société industrielle papeterie express du Sénégal SIPEX mi defar Kaye Espoir ak Kaye Teranga Touba Darou salaam Caro Prestige seen lait de bébé Doudoune NSIA Assurance ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi mbokk yi ñu yegg seeg yéen léegi ci gis-gis tey nag li ñuy waxtaanee di santé mentale wér gu ci xel sabab yi di màggal gu ñuy màggal tey jii fukki fan ci weeru octobre bés mi nu jagleel uh, santé mentale ci àdduna bi fii ci Sénégal sax xew yi uh, ñu ngi koy defee fële ca Kaolack ngir waxtaan ni mel daañu ci ànd ak docteur abib Diop uh, di chirurgien nekk ki taxawal concept bi ñu tuddee Je vis mieux docteur Diop ñu ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi lay fay. jërëjëf da ñu déglu RFM ñëpp. ci waxtaan wi ak Khalifa Ababacar Diagne di psychologue conseiller monsieur Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax di nuyu say auditeur ak docteur Diop bi may bokkal waxtaan bi. jërëjëf docteur Diop yow lay tàmbalee sax euh, fii ci Sénégal euh, boo nee santé mentale rek xel yi li muy dem mooy ñi nga xamante ne ñoom dañoo tàggook seen sago am feebaru xel dëgg euh, yan yeneen yeneen mandarga moo am ci wàllum santé mantal lu dul rek ñi nga xamante ne ñoo yenn seen daal nekk ci mbedd yi. waaw jërëjëf xam nga santé mentale buñ koy wax. maanaam santé yamul kese ci nga yëg feebar ci sa yaram loo xamante ni ci sa yaram nga koy yëg waaye xel moo xamante ni dafa jaxasoo loolu tamit ci santé ci problème santé mentale la bokk. Hmm. donc euh, aujourd'hui nit ñi bari na ñoo xam ne jàpp nañ ni tant que dofoo ba simmeeku bay ci dem ci mbedd yi doo soxla ñu yóbbu la ci fi ñi nga xamante ni fa la ñuy fajee xel waaye nit ñi li ñuy dund. ci bés bu ne ci seen dund. mun na nekk loo xamante ni dina perturber seen santé mentale ndaxte wér-gu-yaram bu ñu koy wax mooy xel mu wér ak yaram bu wér moo tax euh, santé mentale dafa ëmb li nga xamante ni mooy lépp lu jëm ci wàllu même ni même stress bi ñu ci di dund. ci mm-hmm. ci ci ci dundam ci wàllu kaayam wala ci wàllu kër ga wala lépp ci mën ci doon loolu yëpp mën na nekk ay perturbation de santé donc yamul kese ci yaram bu am jafe-jafe waaye xel mu dal tamit ci santé mentale la boobu. Mhm. loolu lu koy faral lu koy waral ba nga xamante ne nit ñi dañu am jafe-jafe yooyu nga wax moo jëm ci wàllum stress wala sa dem ba tàggoog euh, sa sagon. waaw xam nga xam nga feebar yi nga xamante ni ñooy joxe feebaru xel. Euh, stress bokk na ci li nga xam ni identifié nañ ko mu bokk ci li nga xamante ni mën naa jaxal xelu doomu aadama waaye yeneen i feebar tamit mën nañoo mën nañoo nekk cause bi waaye lépp lu ci mën ci doon nit ki nga jéem a fexe ba doo yegg ci yegg di simmeeku wala di dóore ci mbedd yi loolu day daal di gën moo tax euh, jéem koo kar ba nga xamante ni du yegg ci yegg lay ci yenn feebaru xel yi daanaka dafay gën balaa balaa nga yegg foofu waaye stress moom bokk na li nga xamante ni tey ci suñu société. Hmm. bokk na ci li gën a mën a jaxase xelu doomu aadama ba mu tàqalikoog sago. Hmm. jërëjëf Abdou Diop euh, jërëjëf daañu ànd ak yow waxtaan wi laata la dañu ànd ak Khalifa Ababacar Diagne euh, di psychologue conseiller euh, monsieur Diagne ndax santé mentale ñu ngi koy jël en charge comme il faut fii ci Sénégal. waaw El Hadj man yaakaaruma ko. Euh, yaakaaruma ko ndaxte fi ma ko teg mooy ci seetlu man ci sama carrière euh, dama jaar ci ay bërëb yu ñuy faje ay feebaru xel yu bëree bari jaar naa hôpital Fann euh, ci clinique Moussa Diop jaar naa hôpital psychiatrique bu yi jaar naa tamit dalal xel bu Thiès ak beneen centre bu nekk fii ci Grand Yoff Nous koy wax centre de prise en charge des enfants déficients intellectuels Moi, xale yi nga xam ne am problème de trisomie 21 infirmité motrice euh, ak même autisme euh, et foofu yëpp ma ca jaar amul fenn foo xam ne euh, tax na ma jàpp ne ñii kat nañ loolu nag comprendre naa ko parce que Sénégal dafa bëri ay feebar yoo xam ne xëy na moom moo tax ministère de la santé Eh, jàpp na ci feebar yooyu la gën a jublu waaye feebaru xel nekk na feebar boo xam ne kenn waru ko négliger et eh, li war a tax man ma jàpp na jox nañ ko solo mooy mu am ay bërëbu fajukaay yu bari waxuma Dakar rek ak ay Thiès waaye ci réew mi yëpp parce euh, ci réew mi am na bërëb yoo xam ne nit ki bu amee feebaru xal pour mu gis cicatrice sax problème la mm-hmm. buñ ci jógee ñu former nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy yëngu euh, spécialiste yi psychiatrie, euh, psychologie, psychologue euh, yi maa département euh, psychologie bi nga créé ko université de Dakar mhm. psychiatrie spécialisation bi ba des étudiants yi médecine am diplôme nga di proposer spécialisation psychiatrie duñ bari mhm. man psychiatrie bu hôpital bi fa jaar équipe ñu ci ëpp ci Euh, sénégalais yi tuuti lañ fa woon donc loolu aussi problème la bu loolu weesoo jumtukaay yi ak moyens yi nga xam ne parce que euh, feebaru xel euh, faj ko prise en charge am dafa dafa cher. lu lu cher la donc ñett yooyu daal bu ñu ko boolee pour man. def ci effort def ko priorité dinaa jàpp na nit ñi solo bi ci war ñu ngi ko koy jox. Mm-hmm. et fii tamit euh, nit ñi aussi am ñu culture euh, toppatoo seen euh, wàllum xel comme par exemple di seeti psychiatre wala seeti psychologue nit ñi loolu farata farata luñ ko xamul loolu tam. waa Sénégal nit ñi yaree ci société bi ci sunu culture également nit ñi. Euh, loolu professeur euh, Momar Gueye yàlla na ko yàlla yërëm moom moo nekkoon euh, chef service psychiatrie bu Fann bi mu ñuy recevoir ñu nekk ay stagiaire daf ñu doon tooñ mun nañu yéen psychologue yi eh, xam nga ñan ñoo jël seen place ma ne ko ñan mun nañu yéen maamën yi ak praticien yi ci la nit ñi di dem ñooñu la Sénégalais yi gën a considéré comme ay psychologue hmm. loolu aussi culture la tax nit ñi nit ñi di dem ci ñooñu Euh, ba ñu jàpp sax ne ku dem ci hôpital boo xam ne euh, dañ fay faj euh, feebaru xel wala nga dem ci psychiatre wala ci psychologue ñu jàpp ne yow yow da ngaa dof hmm. alors que feebaru xel bari na bari goo xam ne alaalantewuloo dara nit koo xam ne dañ koy tuddee dof ndax sera sax nga gis nit koo xam ne ci dundam du am feebaru xel ci ci benn moment ndax hmm. stress rek ñun ñun ñëpp xam nga dañuy am stress. Mhm. stress rek boo ko amee rek am nga problème mu xel. surtout jamono ji ñu nekk ak yooyu noonu ak méttiwaayu àdduna jafe-jafe àdduna. Euh, nit ñi facilement stress beeg yooyu mën na leen indi ay problème nit ñi xam nga xam nga stress mu mu dal la dafa yomb parce que euh, ca kër ga am na ay euh, par exemple daw ci dépense. problème yi am ci famille bi. Hmm. nga dem ci liggéeyukaay ba également am yeneen problème yoo xam ne jóg nañ. nga boole ñaar yi mu nekk lu diis ci nit ki te stress boo ko amee day am impact ci sa liggéey parce que doo am production ba ca war ñi ngay liggéeyandoo sax buñ la seet xoolee dinañ xam ne yow nekkuloo donc yooyu yëpp ay ay problème la yoo xam ne mën na tax nit war a dem ci ab psychologue wala koo xam ne da koy déglu docteur Habib wax na ko léegi ci tubaab ci ci euh, tubaab. Euh, nit muy am rek ku koy déglu am ku muy waxal am koo xam ne day confié ci moom parce que man yi may am yu yu bari lañ ñi ci seen wàllu sëy la yàbb dafa bëri yoo xam ne xew na léegi ci jamono ji ba ci mbiru téléphone yi internet réseaux sociaux mhm. maa ngi wax ci tubaab bi ne ki ma mujjee topp euh, euh, dem di ko di ko di ko suivre fan yële nekk na koo xam ne benn nit rek ci TikTok moo ko wax wax ju ñaaw presque nit koo ko am jafe-jafe ba sax xëy na bu ñu gaawul woon da doon am dépression yooyu ay mbir la yoo xam ne il faut ñu ñu ñu sóor ko fi mu ne nii même ñiy liggéey wax naa ko daaw sama benn xaritu magistrat boo xam ne bi ñu leen di attaqué ak yooyu ñoom magistrat yi moom amoon na ci jafe-jafe ba ma ko ni même yéen da ngeen a war a am ay psychologue yu leen di toog hmm. parce que dafa dem ba nit ñi stressé wu Euh, ndax ay yu bees la yoo xam ne amul woon ci wàllu liggéey te léegi dafa am ngay war a def ci liggéey am ñun ñoo xam ne dañuy nekk ci internet bi ay réseaux sociaux ay TikTok. di la attaqué kon bu ñu la dégloo li nga bëgg a wax mooy. culture culture seeti psychologue. na yéen yéen a ma ko gën a xam. Mhm. kon daal li nga bëgg a wax mooy culture seeti psychologue ak psychiatre war na mën a nekk léegi kon bokk ci suñu dund bokk ci culture euh, sénégalais. waaw loolu nag il faut ñu ñu fexe ba mu am te li li koy indi mooy xam nga loolu. moy lu tubab di wax construction ak représentation il faut ñu dindi lu ñu défar la mais il faut ñu dindiko ci sensibilisation ci waxtaan dem ba mu nekk loo xam ne eh, dañ koy du nit ki dina ko def te du am benn problème kenn du ci gis lu ñaaw. parce que buñ ko deful eh, nit ñi nga xam ne dañu am feebaru xel wala problème mu bopp ñoom mën nañu nekk ci situation boo xam ne pour ñu lijjanti ko problème lay nekk parce que day fekk ñu dem. Euh, ñu naan dem euh, dëmm ko jàpp raba ko jàpp wala dañ ko liggéey. Hmm. souvent loolu la ñuy wax fekk feebaru xel la bu ñu xam. Hmm. Euh, parce que nit également dafa complexe li ko mën a yëngal ci boppam dafa bari te yooyu bu amee xëy na waxtaan rek benn waxtaan rek mën na mën na lijjanti problème. Hmm. ak benn spécialiste Khalifa dañ lay ñëwaat ak yow laata la day àndaat ak docteur Habib Diop docteur léegi lan nañ mën a def ba gàttandiku feebar yoo xam ne mën na nit ki mën na ko am ci wàllum xel ni ñu war a def. waa ni ko grand xalifa waxee fi mu ne nii loolu dafa nekk un problème culturel c'est-à-dire ñun Sénégal ñun ñoo tàmmul woon di di di di di def loolu noonu maanaam di dem di waxtaan ak nit koo xamante ni dina la jàppale ci sa wàllu dund. moo tax tey jii man concept bii ma indi tuddee ko je vis mieux loolu lay permettre nit ñi nga xamante ni mënuñoo dem hôpital wala ñi nga xamante ni yegguñu fu ñu war a demee hôpital mën nañoo ñëw ci stress bi ñuy dund. ci seen wàllu liggéey ci wàllu sëy wala ci seen wàllu entreprise lépp lu mu ci doon ci seen dund. ñun dañuy organiser ay atelier yoo xamante ni bu fa nit ki ñëwee non seulement dinañu waxtaan ak moom dinañ ko permettre moom mu mën a exprimer wu daal di wax li nekk ci xolam ñu mhm. nit ñu jàngal ko lan mooy stress expliquer ko naka la nga mën a amee ay technique ak ay moyens yoo xamante ni dina mën a dina mën a combattre stress boobu ndaxte loolu boo ko bàyyee objectif bi nekkul nit ki ñu bàyyi ko ba mu simmee simmeeku génn ci mbedd yi di daw di dóoraate wala nangam mhm. waaye mbir mi dañ koo war a koj ca commencement ba mhm. mooy maanaam fa xelam yëngatoo ca départ ba jàngal ko noo xamante ni bu ko defee moom dina gën a mën a améliorer dundam comme ni ko grand bi waxee yenn saa yi waxtaan ak nit rek dina bari lu mu affaire ci moom. Mhm. te tey jii ci dund gi ñuy dund. réseaux sociaux yi loolu moom chaque fois dañ koy wax maanaam di xool dund keneen di ko mhm. comparer ak sa dund rek loolu rek mën naa yokk stress bu baree baree baree baree bari sa dund ndaxte fi mu ne nii boo gisul. li nga xamante ne moom nga am da yaakaar ne li ngay gis ci réseaux sociaux yi loolu mooy dund ñeneen ñi. Mhm. ci wàllu waxtaan boobu est-ce que tey jii ak réseaux sociaux yi ni mu demee nouvelle technologie yi dafa mel ni léegi nit ñi seen téléphone la ñu gën a téléphone yi la ñuy gën a waxtaanal et que accompagnement bi daan am accompagnement social bi loolu tamit nekk loolu xam te ne gisatuñ ko léegi. loolu véritable problème la ndaxte tey jii da ngay gis société bi nit ñi daanaka waxtaanatuñu te bu ba mooy comme ni mu ko waxee. feebar yi bari na ci yoo xamante ne xamuñu ko woon ci suñu société yu njëkk ya waaye tey jii dangay gis koo xamante ni day sëdd ci téléphone maanaam bu wa bu ñëwee këram sax nit ñi dañuy toog kenn waxtaan ak kenn te loolu bu yàggee dafay indi isolement social mooy bu yàggee nit ki di denc ci biiram ay mbir yoo xamante ni mën naa am bu bu ci waxtaanoon ak nit dina am pression bu baree bari bu mu wàññeeku ci moom. Hmm. moo tax concept je vis mieux bi. maanaam nekk na loo xamante ni dina mën a permettre kenn ku ci nekk boo ñun boo ñëwee ci suñu atelier yi ak yeneen rencontre yi ñu def dina permettre doomu aadama yi ñu mën a exprimer wax li nekk ci seen xol tey ñu ñu jàngal leen noo xamante ni bu ñu ko defee comme ni ko grand bi waxee dina réduire pression bi balaa ngay yegg ci yenn niveau yi. Mhm. état bi aussi est que wàllu prise en charge bi état bi eh, gis nga ne na mu waroon taxawee ni ñu koy taxawee jëm ci wàllu prise en charge santé mentale. comme ni ko grand bi waxee etat bi am na lu mu ci def waaye bari na ci loo xamante ni tamit maanaam dañuy apprécier li fi nekk tey yaakaar ni di wax ni peut mieux faire cest à am na leneen ak leneen loo xamante ni état bi tey jii bu ko defoon priorité dina bari lu mu améliorer parce que tey jii Sénégal comme ni ko grand bi waxee boo boo boo demee xool am na yenn dëkk yoo xamante ni tey jii munoo am psychiatre munoo am psychologue te ñooñu di fa nekk dañuy am jafe-jafe yooyu ñu xam fu ñuy jublu su ko defee li ñuy mën a def mooy jublu ci ñi nga xamante ni dañuy faj ay rab ak ay yeneen pourtant nekk na ay feebar yoo xamante ni bu ñu ñëwoon bu ñu amoon accès ci ay psychiatre wala ci ay psychologue ay feebar yu ñu mën a faj la mën a régler problème bi jàll ci leneen donc état bi tamit ak ministère de la santé ak ñëpp ñu ngi leen di woo ci appel boobu ñu jëlaat santé mentale def ko priorité ndax fi mu ne nii nit mooy xel maanaam nit ci boppam xel la. Mhm. fi mu ne bu dalul daanaka sa wér yaram mënut a donc loolu tamit ñu ngi ciy lancé appel pour euh, comme ni ñu ko waxee yokk yi nga xamante ni mooy équipe yi nga xam ne ñoom ñooy faj lépp lu jëm ci santé mu nekk psychiatre yi mu nekk psychologue yi ak aides sociaux yi ak ñëpp ñi xam ne ñoo leen di jàppale ci liggéey boobu. jërëjëf docteur euh, Habib Diop ñu lay sant di lay gërëm fàttali si région nga nekk tam ki taxawal euh, concept bii di Je vis daaneel ak Khalifa Ababacar Diagne ci wàllu moom wàllum solution yi ak euh, tamit yan yoon lañu mën a jaar ba nga xamante ne nit ki dina dund ak xelam si xel mu sell parce que. Euh, comme ni nga ko waxe xel mooy nit ta ngay def dara il faut nga am xel euh, sa xel sel nan nan lañ mën def ci walu woowu. waaw man li japp ne lolou lañ wara tambalé moy mu am sensibilisation bu jóge ci ministère de la santé ci ni ñuy euh, jëlee en charge du problème mu santé mentale manam ñu wax nit ñi ne amna ay spécialistes yo xam nit ñi war nañ mën dem ci ñoom former ay assistants sociaux yu bari. Euh, maa ngi koy wax sànq fac euh, faculté de lettres am na département de psychologie maa ngi koy rafetlu nañu yokk spécialiste euh, spécialiste yi ci psychiatrie am ak ci yeneen même xeetu spécialisation comme li sama kenn ci sama maître yi ñi ma jàngal Idrissa Ba di def PAD psychiatre pour addiction yi ci wàllu ay jeu de hasard ci wàllu drogue ak yooyu yëpp ñu yokk ko mu am également ay jumtuwaay yoo xam ne affaire santé mentale rek lay gérer maanaam hôpital boo xam ne dañ naan hôpital bi hôpital psychiatrique bu mag la boo xam ne ñu bëri mën nañ fa dem ba pare ñu tas ko nekk ci biir réew mi ba ñëpp mën ca dem ñu sensibiliser sénégalais yi ñu xam ne euh, affaire euh, feebaru xel wala affaire ay stress ak yooyu du ay mbiru rabat mbiru liggéey ak euh, mbiru dëmm ko jàpp ak yooyu interprétation yi mu am vraiment sensibilisation yoo xam ne da koy dindi faxas ko ba tax nit ñi bu leen loolu dalee ñu xam ne mën nañ dem ci yenn bërëb yi mën nañ dem ci ay nit ñoo xam ne mën nañ wax ak ñoom te kenn du leen jà jàppee dox parce que comme ni ma ko waxee sànq nit kuy dox rek am na loo xam ne mën nañ ko gis ci yow boog feebaru xel ah Habib di rafetlu li mu def parce que objectif bu dund mooy dund ku neex mooy mooy dund euh, je vis mieux mooy dund koo xam ne nit ki dafa war a ànd ak taw féex ànd ak taw feex boobu nag dafa am sax impact ci Euh, liggéeyukaay ci économie bi parce que bu fekkee ni yow amoo taw feex sa bopp yow doo productif mm-hmm. moo tax santé mentale nekk na loo xam ne dañ ci war a investir kenn waru ko négliger ñu fexe que euh, nit ñi euh, am accès ñu maytu tamit ci li may gis fan yi mooy nit ñu bëri dañuy jàpp ne seen problème santé mentale seen confidence li ñuy wax li leen dal dañu war a dem ci ay nit ñu nekk ci réseaux sociaux yi mm-hmm c'est dangereux nit dem di confier wu ci koo xam ne du spécialiste jàng ko. wala ci rajo yeeg ci télé yeeg yooyu surtout ça la war a dégloo jàng ko donc du xam nan lay dégloo. Mm. mais conseil yi mu lay jox xëy na da lay day gën a empirer sa situation da koy gën a da koy gën a jafeel. moo tax loolu aussi maa koy gis ci Sénégal mais euh, pour man lu ñu war a maytu la. jërëjëf euh, Khalifa ñu lay sant di lay gërëm mu nekkoon xalifa Khalifa Ababacar Diagne di psychologue conseiller ñi koy gërëm bu baax del tam di gërëmaat bu baax docteur Habib Diop chirurgien nekk ki taxawal concept je vis mieux mbokk yi mu nekkoon gis-gis noonu tam xibaar yi. El Hadj Ndiogou Diène nekkoon ci euh, micro bi Amady Ndiaye ci machine bi euh, ànd ak euh, Cheikh Tidiane Senghor production Aliou baax ak Abdou Thiam chef d'édition Oumou Kalsoum li ak soxna Aw mbay ci kanam tuuti yëg lay tàggee ak soxna Aminata Ndaw jaajëf Ndiou Thiam beeg RFM ñeent ak jàmm.